Euh, démb dañu gis ci presse bi euh, ku mel ni Idrissa Seck def ay déclaration yoo xam ni daanaka ay saaga yu ñaaw jëmale ko ci njiitu réew mi ñun nag ñu yaakaar ni campagne électorale bi commencé na foo dem affiche yi ak meeting yi ak campagne de proximité bi moom moo nekk ci biir réew mi ba ci dëkk yi gën a sori foo dem di nga fa gis waa Benno Bokk Yaakaar ñuy wax di wax ak population yi te seen wax yëpp presque benn la ndax dañ koo tënk ci rek ci juróomi at yi lan la président la république def ci réew mi wante ci wetu ñooñu am na ñoo xam ne nii kenn gisu leen fenn parce que amul fenn fu nu dem ndax fu nu dem duñu gis nit léegi lañu am mooy dem ci presse bi euh, di saaga ak di yàq der ndax Idrissa Seck buy wax naan président de la république dafa war a sëgg balu ak réew mi ñëpp war a balu ak réew mi ñëpp war a balu ak ku rek jullit ak moroom fu mu toog sax war na loo barante mais ban ak la Macky Sall yoro réew mi tey ndax juróomi at yi mu fi nekk liggéey na fi loo xam ne nii doy na ci ndam lu ta loo xam ne war naa mën a toog fu neex wax population bi ci loolu ci ci loolu la nu nekk ndax problème yi nga xam ni moom la Idrissa Seck di souligner mu jëm ci baccalauréat bi loolu président la république am na ñu mu ko dénk dégg naa keroog ministre bi nee na. depuis l'indépendance bi indép bi ñu amee indépendance ba léegi defe naa ne ñetti decteur de kii ñoo fi nekk de l'office de bac ñoo fi amagun boobaak léegi aussi yenn saa yu dégg fuite mais lu ci mën a am fuite yi ñi nga xam ni ñoo ko sos wala ñoo ko def yoon dina leen gi euh, topp fi mu leen war a toppee ba jàpp leen def ci ñoom li war loolu amul lenn loo xam ne ñuulal na ko ci politique gu président la république ndax ndax président la république li mu def ci éducation ci cinq yi defe naa ni ba nu amee indépendance ba léegi kenn defu fi toll noonu surtout ren ni mu satisfaire euh, li nga xam ni moom la jàngalekat yi doon ñaxtu tax na ren grève amul donc fuite yi am ci bag yi mënul mukk gàkkal li nga xam ni moom la président de la république liggéey ci réew mi ci wàllu éducation ci wàllu santé ñépp xam na ni santé Sénégal bu fekkee ni bokk nga ci mutuelle yi da ngay faju presque doo fay xale yi nga xam ni amagun juróomi at kenn dootul fay donc programme yi mu ci tëral bari na problème mu machine bi nga xam ni mooy faj cancer ten ko doon wax jëndi nañ ci ñaari machine te yebal nañu sax fukki in euh, infirmier ñu dem Maroc ñu former leen pour ñu gere machine yooyu ba nga xam ni panne yu mel noonu du gaaw a am donc man defe naa ni ci côté yooyu sa Seck di wax yépp amul lenn loo ci xam ni taxaw na ci wàllu pétrole bi amul benn toq pétrole boo xam ni waddagul na Sénégal ci recherche yi la nekkoon def na recherche yi te yàlla hasard amul yàlla dafa bàyyi ba nga xam ne nii ki jiite réew mi yàlla tànn ko mu jiite réew mi muy Macky Sall doon ingénieur boo xam ne expert la ci wàllu pétrole jël réew mi ci boobu la yàlla soog a feeñal pétrole bi ci réew mi donc loolu am na lu ci yàlla namm te bi bi bi loolu amee lépp loo xam ne mu ngi ko ci war a liggéey pour mu leer ci bëtu nit ñi ñu ngi ko ñu ngi koy def ba nga xam ne nii pétrole bi dinañ ko génne def ko fi nu war a def te benn njuuj njaaj du ci am benn njublam du ci am ndax Macky Sall ci boppam du koo xam ne détourneuru xaalis la ñi nga xam ne ñooy détourné xaalis xam nañ leen Idrissa Seck na wax nit ñi fan la jëlee recherche bi euh, protocole Rebeuss bi nit ñi fàtte gunu ko milliards yi nga xam ne moom la suturé ci Ablaye Wade ba tax ñoom ñaar ñu am seen problème Sénégal yi fàtte gunu ko defe naa ne loolu moo jara wax waaye fi mu toll nii campagne bi euh, euh, camp moment la boo xam ni Euh, moment bu bien la pour que sénégalais yi mën a tànn député yi nga xam ne ñoo leen di présenter à l' assemblée nationale loolu nag boo ko bëggee da ngay wut programme bu leer nga proposer ko population yi waaye ay saaga ak ay xastaate loolu defe naa ne du li nga xam ne moom moom